jaamaarloo bi mu ngi door ci dëkk bu ñu ooyee garawol mu daal di tasaaroo si yeneen i béréb benn nit rek lañ am si suñu dëkk yi moom moo ñu tere nelaw si suñu dëkk yi mënuñoo am jàmma ndax benn nit ku ñu ooyee Musa Tarawale moom ngi dëkk foofu ca Busumbala lu weesu fanweeri at moom gaadaayoon na bàyyi ko garawol dem foofu ca Busumbala ñun julum réewi Gambia lu ñu war a xam mooy ne amut kenn koo xam ne nag jéggi na li nga xam nag moom moo di lu toll ba ci fukk ak ñoom ñoo dëkkee fii ah, benn nit ah, bu ñoo ooyee Mansa muy jóg di def lu ko neex nag si turi li nga xam nag moom moo di ah, jaam loolu lenn loo xam ne nekku di am fenn si jamono ñu toll nii sa doom sax doo ko mun a forcer pour mu def li nga xam nag moom nga bëgg loolu nag dina la war a eh, won ne doo mën a ooyee benn nit ne sa jaam la